ki nga xam ne mooy moo géet donc sénégalais bu nekk fële ci Amérique ñu koy faral di gis temps yi ci internet bi muy joxe di maye xaalis bi mhm. ko sànni suuf sénégalais yu bari di ko critiqué mhm. ndax xaalis ñu ne xaalis kenn waru koo toroxal affaire yow ma dégg nga koy défendre lan moo nekk seen diggante ba tax ngay koy jëlal baax yow gis naa la mosumaa gis moo géet mhm. ndax xam naa ni nga tudd ndax man xam naa noo tudd ndax xam naa noo tudd jaar wóoru ma de xaw ma ba ba ma teguloon fi ay milliards wala nga tëgal ma ay heure kër ak léppi àddina xaw ma yow noo tudd xaw ma woon moo géet dama seetaan vidéo bi dama bëgg Aïda Samba ak yeneen musiciens yëpp ak musiciens yi ñëpp ndax lépp senegal la ma gis mu tiim ko bi mu ko njëkkee tiim mayu ko de mu tiim ko di ko woy di ko woy di ko woy di ko woy di ko woy ba mu yàgg mu génne xam nga lu ma fu ma koy teg dama koy seet ci ba ma Moustapha Mbaye lii keroog maa may Moustapha Mbaye million Moustapha mbaay mi ngi dund ba may jógee màkk premier jour ñu may ganale dégg nga maam Moustapha Mbaye ba muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sama yaram dafa tàng sama kalpe un million laa génne bu dërëm tajul dugal ko ci biir di ko jox di ko jox di ko jox di ko jox ba li ki des dama ko ko xëpp nee na moom ba mu juddoo ba tey li ma ko defal keroog musu ko am mhm. yaram mooy tàng moo géet man daal xam nga la moom a jaaxal Sénégal laa wax lu tax du ñu liggéenti li ñu war a liggéenti lu tax ñoom du ñu liggéenti seen problème ku liggéey xaalisam moom moom xaalisam xam nañ moom fu mu jóge woon ak fi mu yegg man ko am yéene naa la ku ñàkk dama lay ñaanal sunu borom may la ndax alal jombul kenn waaye man mii tey jii Aïda sàmm bu taxawoon fii gi sama kër gii fekk ma yore ay milliards wax ma la million de dugg naa ko ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ak keneen ak daba sëy ak keneen ak keneen waa daba sëy dafa am solo dalay yëngal voix Aïda Samb da lay yëngal. Mhm. parce que ñoom ci côté dafa am benn côté boo xam ne dañ ca am mëne. Mhm. dafa am côté boo xam ne buñ la yuuxulee sa yaram dana dana daw. Mhm. bu doon ay milliards di nga ko dindi joxe ko la mu ko sànni kooku mu ngi taxaw tiim ko di woy munu koy jox. ndax doomu aadama day am lu nekk ci bu sa deret dawee dëgg-dëgg booy wiccax sax doo ko tey li waral ngay toog ne tey jii damay dem sabar du ma fekk tegale tànk. bu sabaree jógee booy tëb doo ko tey kon nañ bàyyi moo geet man xaw ma moo di geet damaa dégg sa tur boo ma ko laajoon léegi duma la ko wax xaw ma turam maanaam li nga xam ne mooy dëgg moom moom xaalisam moom moom xaalisam bu ko neexee sànni ko am na fi ku xotti woon xaalis xotti kii de da koo da koo joxe sànni ko am na fi ku xotti woon xaalis bañ tëj ko damay bañ a wax tur bi xam naa ko mais nañ bàyyi doomu jàmbur toujours li nga li ñuy tardel ëllëg rek mooy lijjanti yu fi jàmbur Selbé Ndom la muy def ak la muy wax lu ci seen yoon la woykat ba wax naan lu ci sa yoon sa yoon nekku ci lu ci sa yoon luy seen yoon ci moo gét seen yoon nekku ci moom moom xaalisam bu ko neexee mu sànni ko ci kaw adduwaas bi yenn saa yi woykat woy loo xam ne sax moom du xam lan la sama junni bi sa yoon nekku ci du war woy na ko ah. kooku war ngeen moo geet na ko neexal kat junni yi moo geet yee ah. yoonu kenn nekku ci moo ko liggéey moo ko ñàkk moo ko moom na xaw ma moo geet yaa ma wax sax tur bi mhm. mais vidéo bi dama koo xool am na droit génn xaalisam sànni ci biti américain la mhm. doo xool chanteur américain yi xoola Chris Brown ak ñeneen ak ñeneen da ngay gis maanaam bu ñuy woy dañuy génn xaalis di ko def nii muy naaw mais loolu lu ci seen alal la ñoo ko moom ñoo ko sànni bu la neexee ñu lakk ko ndax ba ñuy liggéey di ko ñaq selbe fekkewu ko yow fekkewu ko kii fekkewu keneen fekkewu ko li ñu war a lijjanti mooy chômage bi ci réew mii ñàkk liggéey gi ci réew mii te jigéen waree liggéey jëriñu góor war a liggéey jëriñu bi ngay ñëw dañu nga ak jigéen joo xam ne mi ngi boot doomam yore boroom këram ñëw taxaw fii di ut lu dëgg am dimbale ko ñàkk am ne ko man kat fi mu nekk nii doy na waar ci nangam laa jóge mu dem seeti feneen dëgg kenn ku ci nekk daal loo mën a dimbalee nit dimbalee ko nit moo gën toppatoo say business toppatoo sa liggéey toppatoo sa taraayu bàmmeel te xam ne tôt ou tard danga fiy jóge moo gën nga nekk ci dere jàmbur loolu du actualité. Mm-hmm. ñi koy wax ñëpp man gëw man man loolu sax. Mm-hmm. nañ liggéeyal seen bopp.